li ñu dajale fii tey jii muy place bu nga xamante ni bañ ko tànnee nekkul n'importe quelle place dafa daj dajeeg solos ak dayoo li nga xamante ni mooy mébétu jàngalekat yu jigéen yi ak jàngalekat yu góor yi ndax euh, dafa am temps bu nga xamante ni dañ ko jaar muy temps bu yàgg bu nga xamante ni euh, pour ñun euh, gouvernement bi mbii jóg mbaaloo la nekkee woon ak ñun. engagement yi nga xam ne jëloon na ko par rapport ay accords yu nga xamante ni dafa ne waaw c'est réaliste et réalisable. gouvernement wu Sénégal respecté wul engagement yi nga xam ne jël na ko ci kanamu jàngalekat yi. am ay poñ yo xamné yu am solo la moy euh, système de rémunération des agents de l'État moy corps des administrateurs scolaires moy impôts yi nga xamné dafa sur les salaires et les rappels moy euh, le corps des PCMG en EPS moy lenteur administrative yi nga xamné ñu ngi koy té ñu waxone dañuy dématérialiser le système kon buñu gissé situation yooyu nous ñoñu obligé tay mais ñu engagé cette marche là de Dakar marche bi ñuy def tay damay préciser du marche nationale marche enseignant

du dëgg injustice la ñaareel bi mooy ndàmpaayu dëkkuwaay dañu jàngat ñu ne yamale amul ci njàngaay euh, ci ci ci payoor yi ñu def jàngat ñu nañ ko corriger nañu def un système de rémunération juste équitable rénové attractif et motivant président Macky Sall ne moom sax dana def beneen jàngat boo xam inspection générale d'État moo koy def parce que nangu ni yamale amul Sénégal ngay gis kii di fayeeku trois

de cours en, en, en EPS. E Alors que EPS, tu as l'anatomie du corps, tu as la sociologie du sport, tu as la psychologie du sport. Professeur d'EPS, dafa uteex professeur sport ñaar yu ute la kon mënuñu nangu ño xam dañ leen tagat ñu tegg leen fi sanni leen jëluñu leen jël ño xam ne formation benen bi mbir mi moy les abris provisoires parents yi nañu xam professeur mat amatul ci réew mi professeur philo amatul professeur espagnol amatul ñu ngi wàññi wàññi crédit horaire yi lolu yëpp wone ni ñang mi soxalu leen école lo ci def rek jarnako buñ ci defoon 2000 milliards jarnako parce que xaliss bu ñuy yàq di defal ay terre di defar yenen duggal ko ci njàng mi mo gën duggal ko ci patch mi mo gën duggal ko ci pes mi mo gën duggal ko ci njàng mu kawé mi mo gën wa euh, G7 taxaw nañu takku signal dor la nguur gi nako xam bii plan d'action la dina am yeneen plan d'action yu ñëw bu dee góor gi nanguwul satisfaire suñu revendication